برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Thank you. la gisee gisee ñoom ñoom la am Sale, sale. flash bi flash bi indi ko. yow sama ginnaaw wàññi. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi ziar bu baax di wax yow sa doom la baax na baax xarit boobu. kuréel boobu wax ak jamiya al islami yi ñu tuddal ko. waaw wallaay wallaay sant bu baax xam yi. yéen a yebale ñëwoon ñu gis loolu maa ko ma suñ bàyyi maamu ñes bi doom suñ maamu ñes ci réew mi Sénégal nekkoon ci ko nit ñi nga moom mooy ak bàyyi bu yoroon yëpp moo ko yoraat ñaareel ba ñaareel tamit lépp loo xam ne jëm na ci Medina Baye ci gàmmu gaal organisation bi lépp ci loxoom mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla borom ko xam la bëgg lu baax te yaatal lool eh, lii ñu nekk muy liggéey bi nga dénk ñu ko muy jàpp njàpp ñu nag sëkk lépp rek ñu islam am nekk dem moom nag mu jugoon wax na day ñëw pour ziare si la waaw balaa màggal ngay jot eh, ñëw ndokkeel si la eh, liggéey bu rëy bi nga xam ne yàlla dénk na la ko keppaaru sëñ Tuuba nga nekk xalifam yaa ngi ci yàgg loolu tamit mu rafetlu ko lool fu mu nekk ñun ñëpp boo ci dem rek ci tarixa yi ci buntu kër yi genn kan bi genn la ñoom sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg ci wér ndax yi ñu jub ñëpp yi ñëpp ñëpp nga laqal cofeel ak yërmaane te loolu mooy yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla na fi sallallahu alayhi wasallam ci tax ñoom am ci yow cofeel kenn ku ne boo fa demee danaan mën de mbir ma lool ndax ndax loolu nag wax dëgg yàlla muy sakk ñun ñëpp moo tax moom mii jigéen jógee Medina Baye ci turu xalifa ba ak turu famille bi yëpp El Hadj Ibrahima ñoo ànd ak ay muxaddamam ànd ak ay taalibeem loolu incha allah dafa seen ndokkeel la euh, ziar la jëlu euh, dëgër la bu mbokkeel nga xam ne moom la wa taala boole ñëw di ko xeeñtu si fii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد البشير النذير الأمين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن شيخنا مولانا شيخ الاتجان صاحب الختمين والكتمين وعن شيخنا صاحب الفوضى مولانا شيخ الإسلام حبيب الله سيدنا بالتعدي خليفة بالتعدي في حبل الموتور توباي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الخليفه الشيخ محمود البشير الخليفه آه، الشيخ محمود المنطقه مبكر مان لي نيو في واتي واتي واتي غنا سيري واتي واتي مان لي جوتو نيو الاسلام بو سيل باي كو سو سوفي سو خريط الخليفه الشيخ احمد تجاني ابراهيم سعد مولاي مولاي شيخ الاسلام المقدم من جبل نيب الامام بي مولاي بي امي آه، مان لي جوتو تام نيو سو مان جي بوتي كرسي مام نياس Marak Cheikh Hamada Niass ak Serigne Mansour Niass son excellence ñëpp ñu ngi lay nuyu. maa ngi defoon nuyoo tamit sa sa sa wëllëre sa soppe présidente du conseil économique social environnemental muy soxna Aminata Touré ñu ngi nuyu bu baax ak ñoom umma islamique yëpp ak Sénégal mboolem askan wi. bu loolu weesoo maa ngi lay ndokkeel ci taxawaay bi nga xam ne moom la la yàlla jox di ñaan yàlla suñu borom yokk la dëgër laay ak fan ak wér nga yàgg fi te wér. bi nga ootee rek. l'islam bi nga oote sa oote maam bi bu sell bi mooy Xaadimu Rasuul moom nga dekkal oote bennoo oote jàmm eh, ñu lay ndokkeel ci bi ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nga fa jubale eh, ñaari président yi jubale mbooleem ñu ko fa juboo bu loolu weesoo nag samay tànk tànk jàmm rek la tànk l'islam laa fi ñëwee tànk cheikh l'islam bi nga xam ne daan na ñëw Tuubaa daan na dem ci waawoon daan na dem kër diine yëpp pour lu dajale sëriñ si ak ñu leen bennle lislaam bi nag yàlla wax ñu ne waatasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu nga nekk ci nag yow di ko jëfee di ko waxee ñun nag suñu seen i doom lañ seen i njaboot lañ ñu ñëwoon nag doon sàkku ci yow sàkku euh, sàkku boo xam ne ni ci ittey wi la ittey jullit ñi pour lu gën a boole jullit ñi pour gën a boole kilifa yi mooy sàkku daje boo xam ne euh, yow ak ñii xalifa ci diine yi ñu ne koy jiite mm, te bëgg naa nga dugal ci sa loxo bu tedd bi bëgg naa nga def ko sa làmmiñ bu barke bi bëgg naa nga def ko sa itti woo nga xam ne lislaam rek moo la ñor nga may ñu ñu jullit ñi may lislaam may borom bi kilifa diine yëpp dajee jotaay boo xam ne yéen yéen koy tànn président de la république président Macky Sall bokk ci opposition bi ak jiite labbe yi suñu teraan la boo xam ne jàmm lay doon maa ngi koy sàkku ci yow te yàlla rek tax yàlla dafa dogal jamono yële ci cause bi nga xam ne fa la Mawlana Cheikh euh, fay dam fa laa nekk moom mu loolu sasa mën nañ fa dellu fa laa nekk ma defoon fa xalwa ñeen fukki fan su borom am ñu ma baaxee ne jaan su feebu laa waaye jotaay boobu de bu amee dara nekk yokk jikki ñun te yow da nga la cee fekk loolu daal laa ñëwoon di ci sàkku ndimbal yàlla daal wax ci alquran ne soo indi sansoroko fi diine fa aleykum nasr su sàkkoo ci yéen ndimbal loo xam ne jëm ci diine la ngeen dimbale kaami alquran bi moom laa indi bu kóllëre diggante Baye Niass ak seen sa maam bu tedd ba sa baay bu tedd ba ak diggante Xaadimu Rasul ak ñoom def na ko muy kóllëre nga leentu lu ci yàlla ñu gën a taxawu diine bi gën a taxawu askan wi di la nuyu bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla di sàkku jiw ñaan di sàkku ñaan mboolem jullit ak képp koo xam ne bëgg nga lu baax loolu daal moo doon samay tànk bëgg naa di nga wax président Macky Sall bu itteewoo jotaay boobu moom it taxaw ci teew ci gouvernement président mu nekk jàmm joo xam ne dafay dëggal jàmm ji nga xam ne moom nga nekk te moom nga tàmbali ko rek ci Masaalikul Jinaan te mosul ko doxee tamit laata ngay toog ci xalaatam maa ngi gàttal maa ngi lay gërëm ci màggal waaye bi nga yégée ne man ci am xel bi maa ñëw rek nga tatagal ma ma rëy na ci man loolu ndax ñëpp a nga soxla pour ñu gisante yow maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi nuyu ma ko defee nii rek ci mbaaxu yàlla noonu laa ko fas yéene ñu wër ci mboolem kër kilifa diine nekk ma dem ko waxtaan ak ñoom nag ñu del siyaat ci yéen su ko defee ñu ñaan leen jàpp loolu dafay am jàmm Sénégal la yokkute Sénégal la solution la pour jàmm waaye tamit bëgg nañu tamit sax ñun taalibe ñun soppi mu nekk jotaay boo xam ne dafay nekk mbaax ak bu jot maam Cheikh bi moom ku baax la sama soppe la ku ñu soxna bu sa Mbàkke wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu

Nangungamadılar, ben sakın. alhamdulilah Mbacke yaakaar naa tamit sëriñ sëpp dañu nangu loolu président dana ko nangu parce que ñu def dajee boo xam ne askan yëpp dinañ ci bëgg àddina yëpp dinañ ci bëgg kenn sëñ ko kon sama xel dal na sama xel dal na moo taxoon naa bu ma tàggoo xalifa bi sëñ Cheikh mu ne ci yow laay jëkk waaw kontaan naa ci loolu lool kontaan naa ci loolu lool yàlla nañ ko fekkee tal ko di bëgg lool sax moo na Cheikh Ibrahima dafa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam lépp sa maam Xaadimu Rasuul noonu boo demee eh, ci roxul adab bi nga xam ne moom la bàyyi njëkk a taalif tudd na ci Xaadimu Rasuul tudd ne nit ku ñuul wala na nit ku ñuul te mën naa nekk bu nekk wane na kawe wane na mbëggeelam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Xaadimu Mustafaa sallallahu alayhi wa sallam ñoom it euh, baytu bi nga xam ne moom lay dégg fan yii di ko wax nga xam ne euh, sa maam bu tedd boobu moo ko waxoon di tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu ne yaa rabbana bil muntaxal ba suuf bi kawe ni daara ni da tafsiri loolu koo koy tagg ko yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit yonent bi daf daan def tafaawul soo ko yaa ngi ciy tafaawul yonent bi ciy tafaawul ci yow <laughs> comme na mu wax bàyyi waxee woon ci

barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan